لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi nu ngi sant sunu borom subhanahu wa taala di julli ci ab yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonente boobu nga xam ne sunu borom daf koo def yërmande ñeel nu comme ni mu ko doon waxee innama ana rahmatul muhdaat man de yërmande laa joo xam ne yàlla daf maa may xeet wi waqad sadaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te loolu dafay firndeel yaqat alquran sunu borom di ko wax ni wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin mbokk yi yónni gi yàlla yónni muhammad ci ñun dañ cee war a kontaan bokk na ci sabab yi waral nit kontaan ci mooy ndekete yàlla bëgg noo yërëm moo tax mu yónni muhammad looloo tax mu ni wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yónni woon la lu dul nga nekk yërmande ñeel xeet bi yàlla sunu borom boole ñu si mu yërëm comme niñ ko xamee ci waar woowu xam ni waar la woo xam ni mooy nuqtatul bidaaya mooy nuqtatul nihaaya waar woowu xam ni tool la bu ñuy bay ba àddina tukki te du jeex mooy toolu pas-pas mooy loolee nga xam ne yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam daf caa fukki at ak ñett ban jàngalekat moo gën a mën wax gën a xereñ gën a mën a raab ay baat yu jub yoo xam ne bu génnee ci gémmiñ dafay dem ci xol direct baraw Muhammad amut ana yan nopp ñoo gën a amut dégg-dégg nopp saxaaba ya loolu amut waaye yàlla subhanahu wa taala defal leen tawfiq fukki at ak ñett yéen yàlla bi di leen jàngal mbir mii ñuy wax mu moom muy doog a moom laa shakka ni kon ñun bu ñu toogoon giir a dund ci wax wallahi day fekk loolu tuuti la par rapport ak li nga xam ne nit ki war na koo toog di ko xam lu pas-pas loola waxoon naa mooy gaal ak yéen yàlla noox yéeg mucc wuute nag alku sànq day tàbbi sawar amul werante mooy pas-pas xam la yonent mi fasoon ak ay saxaabaam ndax allaaxira kat xamal ni say julli lu mu bari bari say jaamu yàlla lu mu bari bari say topp yàlla lu mu bari bari ak lu rafet rafet dama ni jaamu yàlla yooye du am njariñ su fekkee fondement ba baaxul woon yaakaar na ñépp xam nañ ni kaw kuy ñoqali di jëbu kaw da nga tooy teel a sonn ca taax fondement ba day dër day tëll suulu ci biir bu baax la mu laaj ñu jox ko ko boo laajee borom coono bi ngay daj ci suuf si ta day suulu rek li da ko jar mu ne xunkay ndax moo war a yenu ndekete pas-pas nit ki daa war a coono bu yàgg ndax mooy yenu li nga xam ne lépp mooy jaamu yàlla yi nga xam ne moom nga gis ci kaw te pas-pas mu ngay fasu ci biir xol ginnaaw boo xam ne borom bi defal nañu tawfiq ba ñu waxtaanoon ci laa ilaha illa allah mooy lan ak lam bëgg ak lam ak lan mooy toj laa ilaha illa allah comme ni mu amee mbir yi toj njàpp mbokk yi xam ngeen ni dafa am mbir yoo xam ne bu gaaree nit ki njàppam toj na bu jàppi waatul bu jullee amul dafa am mbir yoo xam ni bis bu sa laa ilaha illa allah toj na boo ko yeetalaatut dama ni jaamu yàlla boo def yàlla du ko nangu kon tey ñu ngi tàmbali tomb yooyu nga xam ni dafay toj laa ilaha illa allah ginnaaw bu ci junjee ay mbir waaye tomb bi ñuy njaal beenoo mooy akbaru naqidatin li kalimati tawxid mbir yi nga xam ne mooy toj laa ilaha illa allah ba ca gën a rëy mooy ashirku billahi alazim muy bokkaale yàlla subhanahu wa taala mbokk bokkaale yàlla mooy lan ndax dëgg xam nañ lan mooy bokkaale yàlla est-ce xam nañ bañ gravité moo nekk ci bokkaale yàlla subhanahu wa taala aadama yi am na ñoo xam dañ leen tuddee ay hakim mooy koo xam dafa xereñ ñun nag la ñuy tuddee xereñ mooy waa joo xam day wax ay wax yu jommali nopp waaye déedéet déglu kii nga xam ni borom bi subhanahu wa taala da ko bañ ba tuddee ko saar ci alquran muy luqman déglu ko nga xam ni yàlla moo ko seedal ni ko am xikma la wa laqad aatayna luqman al xikma li ñuy tuddee salaf li ñuy tuddee xereñ yàlla mu ni man maa ko joxoon ki nga xam ni moom mooy luqman sunu borom mu ni ñun yàlla dañoo joxoon luqmaan li ñuy tuddee xikma an iskur lillah ah loolu day daa jaadu mu sant ca yàlla képp ku sant nag na nga xam ni sa bopp rek nga koy defal ndax yàlla dana la dolli waaye ku wér ba santoo kooka dana yëg ni loola day maanaam musiba rek la koy jural te yàlla tamit oomal na ci moom luqmaan dafa toog ak doomam di ko yar umbo wayjur yi bu ñu yar seeni doom ci lan lañ war a tàmbalee ndax demal daara ja la déedéet ndax kaay jàng alquran la déedéet ndax kaay ma dugal la école déedéet ndax bul fen la xam nga ñu bari bari ñi gën a farlu ci ñun mooy ñuy tàmbalee ci seen doom bul fen fen baaxul dëgg la li nga wax lu baax la waaye am na ñu ko war a jiitu loolu ay birig la yu jëm ca kaw am na ñu war a sóolu li nga koy tàmbalee mooy buñ la yónneetee na nga def boo déggatee ay mag yi waxtaan da ngay génn néeg dëgg la yi nga koy yenee baax na a am yu ko booy nangu del nangoo ndey joor dëgg la li nga wax baax na waaye am na lu ko war a jiitu xoolal luqmaan bi muy yar doomam wa id qaala luqmaanu libni wa yaidu ya bunayya la tushrik billah inna la zulmun azim allahu akbar ñun li ñuy mujjee ci gën a baax ci ñun wala li nga xam ni faf kenn ku tudd sax ca luqmaan tàmbalee yar doomam ya bunayya eey sama doom la tushrik billah bul bokkaale yàlla ak dara inna shirka bokkaale day la zulmun azim tooñ gu rëy rëy allahu akbar lii wax ji jiitu na fi muhammad sallallahu alayhi wa sallam xoolal tey xale bi dafay namptaloo ci bokkaale yàlla ndax ci ay waajuram ka koy déggee ay mbir yoo xam ni bokkaale yàlla yu mag la xale bi di ko gis ay mbir yoo xam ni bokkaale yàlla yu mag la xale bi di ko dégg mu namptalu ci màggatal wallahi kii bu ko yàlla dimbalul ko dogaaw a gindeeku moo tax da ngay xam da koy waar sonn ci waar gi lool di ko gindi ci bokkaale yàlla wa ma al asafi ay wayjuram dañ koo tooñ parce que dañ koo nàppatal ci bokkaale yàlla da gis koo xam ni mënoo muus ak mucc mu bokkaale yàlla lu tax parce que dañ koo nàppatal ci bañ bokkaale yàlla dañ koo nàmpatal yar ko xirtal ko ci bañ bokkaale yàlla subhanahu wa taala kon ey eh sama doom bul bokkaale yàlla inna shirka la zulmun azim xool ñun bu la saa yu ne na nga dem luqman def ko deuxième position mu ni ko sunu borom ni wa wasayna léegi nag ñu doog a dénk nit ki na rafetal jëm ci ay way juróom nangoo ndey joor ak julleeg ak joxe azaka ay deuxième la waaye bi war a mooy laa tushrik billah bul bokkaare yàlla subhanahu wa taala ndax bokkaale kat la zulmun azim gis nga la zulmun azim mu ni tooñ gu mag la tooñ gu rëy kon doomu ndey lan mooy bokkaale yàlla subhanahu wa taala baatab bokkaale te bari na luñ koy dégg ci nopp yi ànd ak li a mooy doomu aadama yi fi ne dégg gi ñu koy dégg ci nopp yi dafa dem ba dafa oyof dafa doye di lool ñi koy def léeg-léeg nga ne eh, diw sàngam nangam bu ko def bokkale mu ne dimbale ma laa wax xam nga kañ nga fi judd ba xam dara allahu akbar wallahi fekk kooku mi ngi taxaw ci góosu safara di bitaan ñi ko bëgg a taal bi nga ne ko tourneel mu wa mu wàccax lay loxom laa tushrik billah bul bokkaale yàlla lu tax ngay bañ bokkaale mu ne yàllaa ko njëkk a bañ parce que inna shirka la zulmun azim déglul xadis bi yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp ku faat ëndaale àllaaxira lu tolloog duusi géej gi lu tolloog pepp suufi ci ay bàkkaar saay-saay la njaaloot sàcc na faqman la bon na lekk na lu ko yàlla tere woon mu lekk ko def na ci ay xeeti bokkaale ay xeeti bàkkaar lu rëy déglu yonent yàlla bi ne ku yàlla def ci ay xeeti bàkkaar lu rëy te bari ba dañ koy móolu ndax ni mu bonee woon ci kaw suuf yéen ci yàlla bi nee na yàlla nee na mu dajeeg man ma nuqib xolam fekkuma ca dara ci bokkaale yàlla adxaltuhul janna ma dugal ko aljanna allahu akbar mbokk yi ñun ab bokkaalekat yàlla mooy paasu ñuy rafet njort ci moom waaw lu tax ab mooy katu yàlla bu bokkaale wut yàlla duñ rafet njort ci moom oxun kay même bu ko yàlla day taw ay yar dana taw yar walaw yawman min a ad-dahri dana génn mu al aljanna moo tax yéen ci yàlla bi ku dajeeg yàlla te bokkaale woo dara ak loo andi ci ay bàkkaar borom bi subhanahu wa jéggal mbokk yi bokkaale mooy la bokkaale la ci làkku arab mooy mbir moo xam ni kenn na ko waroon a moom ñu ne ah déedéet nañ ko sédd ma Samba ak Demba ñoom ñaar ñoo ko bokk moo tax soo demee ci alquran ba borom bi sonta dafa firi baat ba bi yonent yàlla Muusa di ñaan di ñaan ku mat di sàkku yàlla wutal ko ndimbal ci njabootam wajaal lii waziran min ahli haaruna axi ustud bihi amri mu ni wa ashrikhu ashrikhu mi bàyyi ko ci shirk mu ni wa ashrikhu boole ko fii amri ci samay mbir bi maanaam boole ko maag moom def ko yonent def ma yonent xam ngeen ni Haarun yonent yàlla Muusa moo ñaan yàlla yàlla def ko bi yonent dëgg la tombee nag sunu na namoon ko na waaye mu ne ko wa ashrikhu fii amri def ko bi yonent comme man ngir ñu bokk mbir mi ndax nu kenn man wala bi ni ñaara ko ko dàq wax nu dëgg foofu foofu moom juumul kay nu sabbihaka wa ndax ñu mën a am doole innaka kunta bina kon bokkaale yàlla mooy jël lu kenn waroon a moom ñu fexe ba moomale ko ñaar wala ñu moomale ko ñett waaye ci làkkub sharia bokkaale yàlla mooy nit ki jël ak nit ku yàlla wala leneen lu dut yàlla ak lu mu mën a doon ñu dendale koog yàlla subhanahu wa jox ko cër bi ñuy jox yàlla di ko ragal ragal gi nuy ragal yàlla di ko yaakaar yaakaar gin war a yaakaar yàlla di ko dimbanikoo dimbanikoo gin war a dimbanikoo yàlla di sàkk ci moom fajub aaju ci loo xam ne yàlla rek lañ ko waroon a sàkk di ko topp ca lañ koy topp ay mooy yàlla la waaye di ko ñàkk a topp ci loo xam ni loola la sunu borom digale nañ ko ca topp ah su boobaa nag mbokk yi ak bokkaale dikk na mooy wutal nga yàlla nag morom subhanahu wa taala moo tax amul ku gën a fiir yàlla subhanahu wa taala te mbokk yi bokkaale yàlla ci mu xel rek wallahi dafa dafa dafa dafa civilisé jubut xam ngeen nu ma koy misaale benn waaye ngi nii boo xam dafa duggoon ci tool yi di roote mu roote ba am fanweeri junni mu ñëw ci njaatige ni ko jabar la njaatige ni ko koo bëgg mu ni ko gis naa diw sàngam ci koñ bi ñu dem dox ko ba mbir ya sot ñu takkal ko diw sàngam guddi jot ñu dem jëli oto yeb ko ca ndaw sa sëy ci ba yor yor jotee sa benn xarit waxaat doxal ko ba yegg kon kon nga woon nga ni naam mu ne ah sa jabar ji yaa ko yaa fi fanaan lay suba ma fanaan ah su boobaa nooy def yaakaar naa ku ne xam nga tontu benn waaye daa jënd oto gaar ci buntu këram benn waaye jógee fële mu ne ko ah yaa ko jënd kat waaye ñoo koy bokk war liggéey su boobaa nooy ñëpp xam nañ ko sama montre bii ma takk waa ah, ko jëndi woon koy bokk kon gis nga lépp loo xam ne yaa yey ci moom ko doomu aadama bu dikkee fut futteeku bëgg ko bokk ak yow nga futteeku ni moom pour xeer waaw lu tax nag yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ni amul ndene amul nduruwaale bokkul ak kenn kenn bokkul ak moom lan moo tax ñu jël mbir yi nga xam ni moo ko war a moom ñu jël ay nit di ko bokkaale ak ñoom wallahi lii hada huwa dalalul mubin cànkute gu wét cànkute gu bér ak ñàkk xalaat bu mag moo daje ci mbir moomu bokkaale yàlla nag mbokk yi ñaari xaaj la comme ni ko borom xam-xam ni leeralee am na benn xaaj bu ñu tuddee sirkul akbar bokkaale yàlla gu mag kooku moom képp ku ca dee képp ku ca dee ci lu amul benn werante ci alquran ak sunna ci li sawara ngay tàbbi te boo tàbbee sawara mën nga faa sax bàcc doo génn ci am na beneen bu ñuy tuddee shirkul akbar te bii may wax muy shirkul akbar day génn nit ci lislaam mbir yi ñu nar a lim ni yii mooy bokkaale yu mag yi képp ku ko def sa laa ilaha illallah toj na bokkaale katu yàlla nga waaye génn nga ci lislaam te it boo faatoo mën ngaa tàbbi sawara boo ko tàmmee mën nga faa sax am na beneen xeet bu ñuy tuddee bokkaale bu ndaw kooku nag la borom xam-xam yi wax ni bokkaale la yoo xam ne bokkaale dëkk la waaye yoon la wu lay ci bokkaale bu mag waaye nag lu tax borom génn ci lislaam ci yenn ci barab yooyu yëpp incha ko leeral ci xutba ci la di ñëw di ñëw wa taala mi ngi wax ci alquran ci wane bokkaale yàlla ni mu yéetee yàlla mu ni wa man yushrik billah képp ku wutal yàlla morom ku bokkaale yàlla ak lenn wala dara faqad iftara isman aziman kooku day fent na sos bu mag boo xam ni fu mu jagat jagateeg moom ma ko fu mu ko jëme xaw ma ko borom bi mu ni inna allaha ta borom yàlla laa yaxfiru du jéggale mukk déglu allahu akbar la mi ngi suurtu nisa saar bi yàlla tuddee tuddee jigéen ñi sunu borom mu ni inna allaha seen borom yàlla laa yaxfiru du jéggale mukk déglul li mu wax laa naafiya du jéggale mukk du jéggale mukk ak koo mën jaar ak koo mën laa yaxfiru du jéggale mukk ay yusraka bi ñu bokkaale ko kenn parce que boobu moom mooy bàkkaar bu mu a bañ nga di ko njaaloo yeeg sàcc yeeg yi nga xam ne ñun moom lañ jàppee yu garaaw yi wallahi rabbil alamin ak góor jigéen day dee ñuy fërti fërti bay dañ ko suul ci armée yi def ma def caméra di ko wane dama ni loola moo gën a oyof bokkaale yàlla wallahi alazim def loola moo gën a tedd bokkaale yàlla bokkaale yàlla ko gën a garaaw dama ni fekk sa yaay bi la jur nga njaalook moom ba jur sa doom bàkkaar bu rëy la waaye bokkaale ko gën a rëy subhanallah am na koo xam ne boo ko waxee loolu dafay tiit ndax bi nga njëkk a wax daa rëy waaye boo nee bokkaale day jàpp ne mu ñuy faxati nopp jàll loo xam ci luy rëy ci bàkkaar nit ki tooñee yàlla bàkkaar a ci gën a rëy est ce que nit ñi xamee nañ ko suñu borom ni laa yaxfiru di jéggale mukk ay yushraka bihi ñu bokkaale nga ne ko yi ci des nag bàkkaar yu mu ne ah yooyu de moom wa yaxfiru ma duna dalika man na kaa baale li ma yesaa bu ko soobee waxu la dina ko baale de dane bu ko soobee mën ngaa dajeeg moom yore ci ay bàkkaar lu bëri fan nga xam ci nit koo xam ne rey na téeméeri bàkkaar yu ñuy wax mu dolli beneen muy téeméer dajeeg yàlla mu dugal ko aljanna fan nga xam waa joo xam ne dafa bonoon ba bu ñuy joxe misaal ci bon moom la ñuy joxe joxe mu dee ni waa këram nan ko lakk def ko dóom sànni xaaj bi ci jéeri ji xaaj ba ci jaww ja ca géej ga ban defee loola mu nekk dajeeg yàlla subhanahu wa taala sunu borom ni ko lii lu tax nga def ko mu ne xanaa xam ne bu ma dajeeg yow boo baalul tey ma dee sunu borom ni ko ah sa ragal toll waaye bokkaale yàlla moom yonent bi saa sallam ni mu ko leeralee ci alquran ko mooy yàlla du ko baal wa yaxfiru ma duna yàlla dana jéggalal dul bokkaale ko ko sob sunu borom subhanahu wa taala yi ak xool ak yonent ni mu màggee yonent yàlla yi ñoom Nuux ñoom Ibrahim ñoom ñëpp sunu borom mu ni walaw ashraku gis ngeen ñi bu ñu tàgganoon ñoom yonent yàlla yi ba bokkaale yàlla la xabita anhum danaa mabbu man yàlla maa kaanu yaamalu li doon def yëpp loolu mi ngi suuratul an'am allahu akbar kañ nga teewlu ci sa bët koo yaakaar ni mën naa bokkaale yàlla yàlla baal ko nga ni ma diw nee ma diw rek koo man ci wax man na kooka ab yonent ku gën la shakka da nga may wax yonent bi ab yonent ku gën suñu borom ni walaw ashraku yonent yi laa wax bu ñu bokkaale woon yàlla ak lu mu tuuti tuuti la xabita anhum yàlla dana mab maa kaanu yaxmaluun mboole luñ doon liggéey sunu borom xool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xoolal yonent bi ak ni mu màggee ak ni ko yàlla bëggee ak li ko yàlla may mayu ko benn yonent ci yonent yi sunu borom ni ko wa laqad uxiya ilayk wa ila alladina min qablik la in ashrakta la yaxbatanna amaluk wala takunanna min alxaasirin ay Muhammad boo sàgganee ba bokkaale yàlla li nga def lépp yàlla dana ko màbb sànni ko te àllaaxira da ngay perte subhaanallah kan nga xam ci kuy baax kooku damay wax tax taxta liwaayi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kooku muhammad féete ne ko kaw yàlla ne ko boo bokkaalee yàlla say jaamu yàlla yépp maam est-ce que laaj boobu yaa ngi koy laaj sa bopp ni ndax man maa ngi bokkaale yàlla wala déet sunu borom mi ngi wax ci suratul maida yàlla mu ne laqad kafara alladina qaalu inna allaha huwa almasih ibnu maryam ñi nga xam ne ñoom nee nañ isa doomi maryam ja mooy yàlla taala allahu an dalika uluwan kabira loola defe naa faram fàcce ga weesoon na ca nettali bi Isa ak dellu suwaateem la sakk loolu njuumte bu mag la bu rëy la yàlla mu ni ñooñu wedd nañ yàlla sunu borom mu ni te wa qaala ya bani israil moo ne Isa daf doon wax naan ee yéen waa banu israil ubudu llaha jaamu leen yàlla rabbi yàlla mi sama borom wa rabbakum di seen borom innahu na ngeen xam ni man yushrik billahi ku sàggan ba bokkaale yàlla faqad harrama allahu alayhi aljanna yàlla araamal na ci moom àjjana du fa dugg allahu akbar lii isa moo ko doon wax te mu yàgg ma ku bokkaale yàlla faqad harrama allahu alayhi aljanna yàlla araamal na ci moom àjjana du fa dugg wa mawaahu naar te sawara lay tàbbi mbokk yi yàlla araamal na ci yow àjjana doy na sëkk jërlu naan sawara lay tàbbi ndax ku yàlla xaraamal ci yow àjjana rek sawara ngay dugg waaye borom xam-xam yi dañuy wax ni baat bu lay wan ni nangam ji lan lay def ba pare ñu ne duñ la def nangam loola da lay wan ni ndigle bii lu rëy la wala tere bii lu rëy la na ci yow nga dugg àjjana ba pare ñu ne woo ma waxum naar sawara nga jëm wama li taalimina tooñkat yi du am ñen ñooy tooñkat yi mooy ñi wutal yàlla morom di ko bokkaale min ansaar ñooñu du ñu am ku leen dimbali àllaaxira aay yu bari yoo xam ne bu ñu ko toppoon dana jël lu bari ci waxtu ci sunu xutba yonent yàlla bi dane sallallahu alayhi wa alihi képp ko xam ni def na ci ay bàkkaar lu mu bari bari bari bari bu dajeeg yàlla yàlla xool ab xolam bokkaale amu ca amaan na bu soobee suñu borom na ko baal tàbbal ko aljanna waaye wallahi boo daje woon ak yàlla ak juróom fukki junni ak ak i yoo xam ne saraxe ko fi sabilillah ak kaamil yoo jàng ak ak ak lim ci ay ci ay te fekk mës ngaa bokkaale yàlla dara dama ne kooku def nga musiba ju luy takkal bi mooy faqad iftara isman aziman kooku de yenn bëri gox bàkkaar boo xam ne du ko attan bu dajeeg yàlla subhanahu wa taala kon mbokk yi bokkaale yàlla ginnaaw bu ñu xamee ni muy wutal yàlla morom ci anam yu ma ko leeralee ci gën a gàttal kañ la bokkaale commencé am ci kaw suuf mbokk yi di deltu gannaaw liñ naan ak taarixu yuidu nafsa deltu gannaaw xam ak am solo ndax da lay gindi wolof yi dañuy wax ne ku dem ba xamoo fa nga jëm da ngay dellu fa nga jóge woon deltul gannaaw bàyyi li am senegal bàyyi li am Afrique bàyyi li am ci àddina bi yépp du ma wax dellul ay kilomètres damay wax dellul ay siècle ci ginnaaw nga dem keroog bi yàlla wàccee baay aadama ci kaw suuf yàlla jox ko yóbbal keroog pas-pas moo fi amoon aadama dund ba am ñeent fukki doom di ay seex ñoom ñëpp des ci kaw suuf ñuy takkante seex bi juddu woon daaw mooy takk seex seex bi juddu woon daaw ku góor ka mooy jël seex bi juddu woon ren te nekk jigéen ñoom ñaar ñoo doon takkante ñu dem ba mu yàgg yàlla mu déedéet koo bokkal benn ndey du ngeen takkante ñu dem ba yàgg ñu ni déedéet koo bokkal benn waaye du ngeen takkante ñu dem ba mu yàgg affaire bi commencé wasaaroo aadama faatu na njaboot gee fi des ndax yàlla namm naa wasaare kaw suuf ay nit lu mat ñaar fukki siècle wala fukki siècle diggante nuux ak aadama dox na fa yoo xam ni bokkaale amul ci kaw su bokkaale amul yàlla rek lañ doon wéetal yàlla rek lañ doon jaam yàlla rek lañ doon yaakaar ci yàlla rek lañ doon dimbandiku ci yàlla rek lañ doon giñ kuy nisër yàlla rek ka tax ngay nisër déglul li may wax bu baax li may wax xam-xam la du samay wax képp ku jàng xam ne leen li may wax xam-xam la borom bi subhaanahu dem ba ab jamono mu am ay jaami yàlla yu baax te di leen nekk li ci sóortu nuux wat suwaa yaxuus yaxuuq ak nasr ñu nekkoon ay jaamu yàlla yu baax yu ragal yàlla yu góorgóorlu yu topp yàlla yu dëddu àddina yu liggéeyal yàlla ci kaw suuf it nag ñooñu daal di xëy rek faatu bi ñu faatoo seytaane mu ne ah, moom kat comme moo toppoon aadama te fi mu nekk nii occasion la doon xaar fukki teekale nii mu ngi xaar occasion amagu ko ndax aadama daal dëgëroon te dëgëray ko da ca yaram njabootam muy naa bàyyi ba aadama faatu ndax jamono lu muy mujj ji ñëw rek nit ñi di gën a faible iblis di ñëw ni waaw yéen lan ngeen xalaat xoolal iblis mu ñëw ci nit ñi wax yu leen seeni xel waaw yéen lu ngeen xalaat ci sëriñ wadd sëriñ suwaa sëriñ yaxuus sëriñ yaaxuux sëriñ nasr lu ngeen xalaat ci ñoom ah da ngeen a nit ñu baaxee li liggéeyal yàlla nii ngeen gat leen suul ñii rek fàtte leen leen ah yéen ñàkk ngeen ngor de allahu akbar mbokk yi xoolal shirk fi muy tàmbali déglu gars yi waaw kon nu ñuy def seytaane wax yi leen nii léegi daal ñii comme ñu baaxoon lañ te yéen wóor na leen ni ku leen xool fàttaliku yàlla da ngeen defar benn monument jàkka ju ne da ngeen fay defar benn statue bi ngeen tuddee ko wat bee yaxuus bee yaxuux bee nasr bee suwaa statue yooyu su ngeen ko tegee ci jàkka yi saa bu ngeen ñëwee di jaamu yàlla ci jàkka yi bu ngeen ko xoolee rek seen xel day dem ci waaju mën a topp yàlla ngi nii su ko defee di ko gën a sàmm baax na wallahi baax na xalaat bi idée bi jëmmi xalaat bi baax na waaye iblis soxlawut loolu moom yàkkamtiwul dara dinaay wax ni koo xam ni demul di demul ceet ndaw talul joxewul dépense defut leen amuj métier la mooy liggéeyam fexe moo ut mbooloo mu àndal tàbbi sa war kese kii xam ngeen ni kii ku xaral la ci li muy def soxlawul génération bi parce que xam na ni ñu dëgër lañ mënu leen a yàqal waaye comme moom day gudd fan ba àllaaxira na def ndànk gis nga su góorgóorloo ab génération dana ñëw boo xam ni ñoom dana leen mën a peeg ba jaamuloo leen sëriñ si billahi alladi la ilaha illa hu su ma génnee ci mbedd mi gis nit ñi takk ay estati ay photo sëriñ ay nangam wallahi damay tiit wallahi rabbil alamin damay tiit li may tiit mooy stratégie bu mel nii ci la seytaane yi jaar ñun amuñu problème boobu te tàmbali nañ ko am sax faf waaye gis nga dem na tudd des na tudd ca kanam mën naa am lii may nettali sax man dana fekk ma faatu du ma ko fekkee waaye des na tudd seytaane mën naa dikkal nit gis ngeen sëriñ si ñuy takk nii estaté ka nangam mooy lii rek kiif kiif bee dañ koo yettoon desee ne ko bii appareil photo ko bee moo mënoon bee yi na bii xew loolu rek la du leneen jaamu leen ñii ndax ñii kat ñoo doonoon sëriñ diw sëriñ diw sëriñ diw gis nga seytaane bi loolu amee gaa yi def loolu def estaté yi mu ne leen ah ñii kat ñu baax lañ gaa yi commencé saa bu ñu leen xoolee mu di leen fàttali topp yàlla seytaane toogaat ay siècle génération boo faatu génération bi mujjee ñëw est ce que fekkee nañ ba ñuy tabax estati yi déedéet seytaane dikkal leen mu ne ah yéen de yéen ngi bëgg a sàggan yéen sëriñ si nii ngeen leen nar a bàyyi nii rek di leen xool rek est ce xam ngeen seen maam yi lu tax ñu tabaxoon ko ñu ne déedéet ñu ni kii mu ni kii mooy yàlla ji ñu tuddee wadd kee mooy yàlla ji ñu tuddee suwaa kii mooy yàlla ji ñu tuddee yahuus kee mooy yàlla ji ñu tuddee nasr xam nga ñoom nu ñu doon def seytaane giñal leen te yàgg na giñ di kàcc ndax defoon na ko baa ndeysaan xam nga Moussa da doon yedd Adama ni ko Adama yow dañ nekkee lépp yaa ñu ko teg ndax dañoo duggoon àjjana waruñu woon a génn yaa fexe bañ génn moo wax Moussa góor gu dëgër gi moo wax loolu Adama Adama ni ko Moussa yaa ma bett naka nga may yeddee man Adama ci biir moo xam ne yàlla bind na ko mu jiitu saa booba loolu lu ma ci man yett yàlla ma ni moo taxit Adama yey na Moussa gis nga kon bi nga xamante ni moom Iblis ñëw na mu wax loolu gaa yi noonu la naxee woon Adama Adama xamul woon musul yaakaar li nga wax billahi te fekk da ngay kàcc Adama xamul woon loolu Iblis ni ko billahi lii ma lay wax mooy dëgg wa qaasamahuma giñal na leen bi gururin ak nax mu ne la inni la min annasihin dama leen di laaj biir sama yoon ah Adama toog parce Adama jàppoon na ni kenn wax billahi dafa a kon de Adama bu dikkoon fii jamono bi ñuy dund ñëpp koy torom bi ndax moom dafa gëmoon ni billahi kenn du ko wax di fen Iblis mu ni ñii kat suñ masaala dañuy dikk sukkal yàlla ji ñu tuddee wat tuural ko soow defal ko nangam ñaan ko yàlla jooju moo leen sawal yaxuus buñ mësaan a am jafe-jafe bekkoor wala naaj dem ba ci digg ba ndox mi ñëwatul ca kee la ñuy dem partagé ko partagé ko mbir mi yeeg foofa la jaamu ku dut yàlla wala jox cërëb yàlla kenn ku dut yàlla tàmbale um ko xoolal fam tàmbale ak fi mujjee si noonu iblis continué ak ñoom ba noox ñëw di leen waar ndeysaan noox am junni at yu manqué juróom fukk di leen waar gaa yi dëgër bopp sunu borom ni fa axadahum tuufaan wa hum zalimun yàlla daal di yabal tuufaan muy ndox moom a nga xam ne dafa dajoon àddina bi kap nit ñi faatu léegi bi nit ñi faatoo àddina bi setaat na wecc bokkaale amaatu xam ngeen kañ la bokkaale commencé amaat ci jamono yonent yàlla Ibrahim déglu bu baax taarif la ci jamono Ibrahim gaa yi dañ doon xool asamaan di gis biddéw yi booba dépassé nañ esprit jaamu ak xalaatu di jaamu ay xéeram ak yu ñuy yet waaye comme gis nañu asamaan si biddiw baa ngay nongu ca kaw weer baa ngay nongu ca kaw bii seddu guy bii bi jër bii rëy lool bii teew lool bii dem bii di ñëw ñii daal ku leen jaamu xam na ne ay yàlla la ñuy doon loola taxoon Ibrahim sunu borom ni ba mu gisee weer wi dañu kii mooy sama yàlla ñu toog ba fajar jot weer wi ni met Ibrahima ni laa uhibbu al-aafiliin man yàlla ñuy dem ak dikk man soxlawu mu toog tuuti yor yor jëf jant bi ne daal ma fonkal lool mu ne haada rabbi haada akbar waaw kay ki ma doon war a ngi nii mooy yàlla ji ndax moo gën a rëy falamma afalat ba jant sooyee jant soo ak mu ne ah fi ne daal wax dëgg yàlla gis naa ne daal fi ma ko fàtt fi bu ma yàlla gindiwul ma sànq foofa la ko yàlla gindee Ibrahima ne maa ngi sujjuudal sama jëbi jëbi ki sàkk asamaan ak la ca asamaan mooy biddew baag weeram muy yàlla subhanahu wa taala kon mbokk yi gaa yi di jaamu weer ay malaaka jàpp nañ ni malaaka yi wala weer bi ak biddiw bi am nañ tatarruf ci kawn bi te ba léegi am nañu gëm loolu da ngay di ku naan biddiw sàngam bu sàqee ku mu tombeel bi tudd ca kooka de borom alal la nar ba lu wallahi loolu ay bokkaale yàlla subhanahu wa taala lu tax parce que dafa am ay fas-fas yuñ ca fas lii mooy fas-fas yooyu am na ko xam ne dañ naan ah bu biddiw sàngam baax kat bu juddoo kooku day borom xam-xam bu la nar a doon déedéet kuy juddu yi nekk borom xam-xam wala ku dul juddu amul fu muy aju ci admina yi mi gaa aju ci borom bi subhanahu wa taala noonu yent yàlla ibrahim bàyyam bokkoon ci jaaykatu xërëm yi ibrahima bàyyam woo doom yi jox leen ni leen dem leen marché kermel war marché caaro yi ngeen jaayi xërëm doom yi dem jaay ibrahima nekk mbooy bu dëgër bu am pas-pas ibrahima day ngàbbu xërëm yi ñëw ba ci marché bi muy eh, yéen waa marché ku ñëw ma jaay ko loo xam ne bu ko yóbboo këram da koy lor waaye du ko jëriñ <laughs> nit ñi ni waa dox bi moom moom kon kañ li muy jaay kañ lay jar ee eh, yéen waa marché kaay leen ma jaay leen loo xam ne boo ko yóbboo sa kër da lay lor waaye du la jëriñ ñëpp di ko daw bàyyam jàpp dóor ba mu bëgg dee waa borom ñi moom buñ dikkee jaral moom Ibrahima du jaral lu tax xam ngeen misaal moom ban laa koy niral sunu jamono jënd ko tub cigarette tuxkan ñu jàngul tubaab waaye lu gàtt gàtt liñ mën a lire ci tableau yi ak carte yi ñu def cigarette defe naa lan ci bind mooy ma jaay la loo xam ni baaxut ci sa santé lu danger ci sa santé ngi nii nga ne jaay loolu loolu amul beneen misaal bu mu nuroo moo tax man bu ñu may jàppaloo dox dinaa jàpp waaye damay jàpp sax tufukaay parce que chance la même boo defee paquet de cigarette li ma lay tableau yi fi ne boo defee tableau publicité cigarette bu ñuy tuddee nangam ci xëntee cigarette yi ko def yàlla bu ñu xam turba sax te defoo te da ngay lor ñu tëj la charte bi mooy da ngay def ca mbir mii kat dafa danger sa santé nga ne waaw amul problème jox ma parce que daf may sawar loo xoola mooy Ibrahima doon def te wallahi nit ñu njëkk ñoo gën a muus ñi ndax a bu dee kaay ma jaay la lu lay lor te la jariñ gars yi dañ naan xam nga ni loolu kay du jar tey waaye ñun nag li ñuy lor te du jariñ loolu mooy jar lor tey moo tax nit ñi doo xam pour leen jabar jabar gi ñu leen takk boo ko bëggee toj doo xam pour ñu nekk noonu la Ibrahima continué ba mu xëy benn bis rek daal di jublu nag ci kër baayam ak xëram ya toj ko ba mu tiba ci saam am ca bañ yóbbu ko ca penc ma ko koo lànk yàlla musalu ko loola yaakaar naa lu yaatu la ci alquran ci des fa xalafa min baadihim xalfun adaau a wattabau shahawaat fa sawfa yulqawna gayya ginnaaw bi nag nit ñi ñëw mooy ñun ñii ak ñu nar a topp suñu ginnaaw ak ñu jiit tuuti jëlal benn likaal pour mu leer ila alxubuuri yiin gaa nga xam ne seen mbir yëpp dañ ko wékk ci bàmmeel di bokkaale bokkaale yàlla gu mag nga yéemu tey bokkaale ci numéro fu mu war a nga laaj màggalkatu armeel yi màggalkatu nga ne waaw yéen seen bokkaale bu rëy gii fu tàmbalee dañ naan la ñun daal ñu ngi tàmbale woon ci ormal kilifa gi wekk ko ndax gëm nitu yàlla jox ko cër bi ko yàlla faatoo ñu gis ni ah ku amoon cër bi ngay dund kat cër war naa des bi nga faatoo déglu kon cër ba war na koo topp ca armeel ba ñu commencé jàpp ne ah ñun kat ziyaar wuñ ko sax pour fàttaliku dee waaye dañ koy ziyaar si pour fàttaliku yàlla iblis jongamb di leen xaar ba ay xuróon ay teekal tuuti passé ndaw rek iblis tàmbali di roob nit ñi ñii kat lan amoon ci ay maqaamaa ci daraja dañ koy am bi ñuy dund bi ñuy faatoo dañ koy am subhanallah demal tey nga wër lii may wax am la demal tey nga ci ay yenn ci ay armel wallahi da ngay fekk yaabuduuna tilka al adrexa kama yaabuduuna rabbal alamin dañuy jaamu armel yi comme ni jaamoo borom armel muy yàlla subhanahu wa taala da ngay gis koo ni ma ngay fóon armel la kee ma ngay raay ca barrière ba. subhanallah ba ci fooy dama ni barrière lu yonent bi sax yonent bi barrière ba mu am dara ñu ko loolu ay nit doo nga ko liggéey du dara ñun yonent bi la na sallallahu alayhi wa sallam bu ñuy màggal wala ñuy fom waaye dama ni da ngay dégg kon mu ne ba ma demee ca Màkka raay naa barrière or ba dama ni barrière or ba c'est sëg la yonent bi wallahi mu dégg woon barrière or ba lañ njëkk a falaxe sànni ko ndax da doon tere loolu ndax da ngeen defe ne ay borom xam-xam ñoo ko def déedéet ay buur a ko fa def jàkka yonent bi armeelu yonent bi ci biir jàkka ji sax saxaaba yi def nañ ko ay buur ñoo ko def te bañ koy def saxaaba yi dañoo làqoon waaye nag buuru ëpp doole baadoo la gis nga nga gis koo xam ne day am lu muy rendi day ñëw ba ci armeel bi rendee ko nga gis koo xam ne wallahi yatuufuuna bil adrihati kama yatuufuuna bil kaabati musarrafa dañuy wër armeel bi tawaaf juróom-ñaari yoon li ma yoo xam ne Sénégal léegi mu de dañuy tawaaf armeel bi ni ñuy tawaafee kaaba nga gis koo xam ne dafa gëm bu amul paasu dem màkk bu ñëwee fii dana am yoolu dem màkk allahu akbar ba léeg-léeg sax nga gisu photo ñu defee ne kaaba gi jibril nàbb ko kaalal yore ay laa jëlee ko fii di ko fee waa dama ni billahi alaykum lanu xalaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ni mu bëggee yàlla ak ni mu baaxee jóge madina amul ndax lu mu war jileem la war ñëw ba ci kaaba gi ba jub màkka yéefa yi dogale ko di ko doo dugg at mii doo di dugg keroog Madina saxaaba yi dañoo mer ba yonent bi ne leen watu leen ñu ni këj bañ koo faale ndax mer ba Umu Salama yonent bi dafa jaaxle Umu Salama ni ko gis nga saxaaba yi liñ bëgg a dugg màkka dong leen mer la waaye jébbi wuñ la xam nga nan ngay def ñoom bëgguñ nga dem di ko watul rek nga dem sa yoon kon dañuy demee ne dangaa mer su ko defee ñoom ñu topp yonent bi watu rek dem mel ni ku mer rek saxaaba yi commencé watu waaw dama ne at mooma yonent bi ajut yonent bi demul ci kaaba ga ndax ko koo tere dama ne bu amoon kenn ku yeyoo ni yenu kaaba gi yit na ko waay waay nan ko ko yit ba pare waaye déedéet ca déwén nga xam ko soxlaa moo ko fekk dama ne Muhammad ibn Abdullah di sunub yonent wallahi moo nu gën a sunuy baay liggéey sunuy baay ak sunuy yaay ak sunuy bakkan ngir Muhammad def ci nu gën a lun mën a am waaye na dañ koy jox cër ba mu am ko jox cëral yàlla subhanahu wa taala Jibril dama ne am na yeneen mission yu mu war a dox yu ay kaaba di ko talut loolu am na leen lu muy liggéey gis nga nga gis ay nit yoo xam ne da ngay ku dikk subhanallah benn borom xam-xam day ngay nettali mu ni dafa mën a doxantu ba ci réew yi yi nga xam ne ñoom du fii Sénégal waaye dañuy def loolu mu ni gardien bi mu génn ay leetar ay leetar di ko ko wan mu ni ko gis nga leetar bi kenn bind ci mu ni yow yow bi tëdd ci armeel bi man de gis nga sama jabar ji maa ngi nekk mu ay at ba am doom mbir mi jaaxal na ma lool mu daal di lem leetar ba maa ngi lay ñaan nga dimbale mu ne gardien bi ci collège sax mu ne xoolal nit ñi liñ joxee rek dafa nga ne doom bu ko bëgg da nga koy ñaan yàlla soo pare nga dem seeti gynécologue doom bu ko bëgg da ngay ñaan yàlla soo pare nga dem hôpital nga gis koo xam day ñëw mu ni man kat sama doom bi boobu ba léegi mi ngi tëdd ci kaw lalu hôpital man dafa dafa wér loolu da ko wax yàlla subhanahu wa taala dama ni kii in tad'ukum la yasma'u du'aakum wallahi ko diw du la wuyu walaw sami'u mastajaabu la ko bu la déggoon du la bi shirkikum àllaaxira day ko doon bokkaal ak yàlla suñu borom ni moo tax àllaaxira man tànk wala yunabbiuka mislu kenn du la xabaare lay xew xam yàlla subhanahu wa taala nga gis ñee ngay xitiliku ci moom ñii saal ay sondeel nga gis nag benn waay bu mën a wut ay fooyam di ci bind ay mbir maa gént gis nangam sëriñ bi nee na ngeen sarake nangam nangam ay kàcc kese la lekkat yi ñuy waxal nit ñi wallahi da ngay xam ni lii dëgg-dëgg ku am tuuti mbañam rus sax doo ko moo ne nangam moo def yii kiraamaat moo nam nangam bala nga am lam nettali rek ay yu baaxoon yu góorgóorlu ñu di leen sosal ay gis da ngay ku naan ko anam mu mu waaxu dem tax ma daal di koy xëcc andi ruu yi mu ne lu mu koy andi yëpp sax loolu nekk li ko la ci moom ndax waaye loolu ku xam ku xam tuuti ku am la ñu rus dafa nekk li yoo xam ne ni mësul parce que day rus day day day wàcce personnalité ki ñu koy waxal ndax waaye yàlla ni mu màccee ana kan ci jaam ñi moom moom balaa fegal kenn dee du ko fegal boppam moo tax li benn waaye doon wax rek waa ji daal dikk naan garab gii de ku ko fekk boo defee nii mu mel nii boo defee te yére yi son bi ngi mottee benn waaye boobu xam li muy wax jóge fa dañoo ni ko waaw xanaa sa yéen sa sa garab bi mu amul loo xam ni boo ko solee sa yére yi nga sol day baax fekk moom lay gaarawaay yow bala ngaa wax kenn da sol yére yu baax ba pare yow amee yére yu baax naan lii su ma la ko takkalee nga am per lii su ma la ko takk nga def itali def itali kay bu dul ci xaalis am yére yi dafa soloon yére yi dafay ba pare nit ñi dañuy wut xaalis kon mbokk lii faw nit xam waaye ab bàmmeel dañ koy ñaanal dañ koy ñaanal allahumma salli ala muhammad ndax ah diw de wax dëgg yàlla xanaa ñu ñaanal ko rek waaye mat na sax a ñaanal subhanallah buñ la ko waxee alal nan la saxaaba ya radiallahu anhum mooy ñaanal leen borom xam-xam yi mooy ñu ñaanal kon mbokk yi faw nit ñi dellu si waat seen xam ni bàmmeel du jariñ ka ci tëdd du jariñ kooku amal na da ngay da nga yaakaar nit ñi li ñu def mu ngi dëgg la du mu def wallaay mu def yonent bi nee na ñu julli jën sa sala bisu àjjuma ku julli ci man yàlla dana ma yee ma xam ni diwu sàngam moo julli ci man benn saxaaba ni ko ah yonent bi loolu moom dana kéemaane xanaa bu fekkee du fekk sa yax yi mu ne ko déedéet suuf yàpp ku ne lay lekk ba mu des yàpp ab yonent wallahi boo demoon tey yonent bi nam meloon ba muy dund ngay foon yaram boo gën di ca génn karaw ngay laax laax nam meloon na la sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi nañ delluwaat ci yàlla te xam ni bokkaale lu rëy la xeet yi nga xam ni mooy xeeti bokkaale yàlla nag yu garaaw la yooyu incha allah te xutba jële di ñëw ak ay mbir yoo xam ni ñi ca bàmmeel yi koy def yooyu incha allah danañ ko leeral ak yi nga xam ni bu ko nit ki defee wala mu wax ko ci lislaam ak yi xam ni boo ko defee wala nga wax ko génn na ci lislaam waaye def lu rëy loo xam ni boo ko tuubul mën na laa alal nu ngi ñaan yàlla subhana taala boole ñu defal tawfiq ak lu mën a am yal na yàlla subhana taala musal nu ci bàkkaaru bokkaale ak xeetam yal na yàlla subhanahu wa taala jéggal na sunuy bakkaar saafaraal na sunuy jàngoro te it may ñu aljanna ak xéewalam waaye musal na ci sawara ak i mbugalam rabbana atina fi dunia xasana wa fi laxirati xasana wa qina adaba annar rabbana la tuzig qulubana baad id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahab wa salli allahuma wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain